booy Niang fu mu jëm suñ toll ni coow li bëri na. sàq sàq ngi ma sama lañ ci xaw ma lañ koy waxee. booy Niang fu mu jëm coow li bëri na. ñoo ngi naan am Boy ñaa Modou Lo tey dafa war a am. dafa war a sax. mais est-ce que Boy Niang bu jëlee Modou Lo fi mu toll nii. Hmm. tey cent deux cent pour cent Pikine boobu ñuy wax est-ce que du am lu ci ci des lu ci xaw kii. loolu moo tax man ah. nee naa ne Pikine. Ah. ñun duñu nangu kenn ku koy diviser. Ah. dañ maa laaj. Boy Niang Modou Lo maye leen pour le moment ñun duñ ci wax li ñuy wax actuellement mooy jàppale soq jàppale Ama balde jàppale jàppale Eumeu Sène combat Boy Niang ak Modou Lo tant que promoteur bi ñëwul boo wax ni moom tëggatul wala CNG wane ni làmb jooju dootul am ñun duñ ci wax ak kenn. suñ ñu waxee nag ni combat boobu amatul. su suñu waxaaleeg ñun ñun ñu wax ñu wax ak ñoom. à part Modou Lo. tey Boy Niang fa la war a day jël ku jël Lac de Guiers revanche wala day dem a Tine revanche parce que ñaari combat yooyu yëpp examen yu booy Niang raté waaw yoo xam ne da koo raté dañ koo jox ñaari examen mu raté. waaw est que day dem jëli ju waat revanche. waaw ndax visa bi gis nañ ñun ni mu tëddee rek ku moytuwul ñun xam nañ ne Boy Niang du bëreeg Bombardier hmm. te yow boo du ñu bëre ñoom duñu bëre ñoom ñaar duñu bëre waaw te tey Boy Niang bu dul woon loolu day dem fekk ci jee ci kaw lan moo ban relation la Bombardier am ak Boy Niang bu ñu bëre Boy Niang Bombardier duñu bëre duñu bëre non duñu bëre de <laughs> lu tax loolu père damaa xam ne duñu bëre parce que xam nga gis nga cin bu naree neex bu baxeexeeñ xam nga yaa ngi wax sànq euh, Siteu Siteu ñi ko wër ñëpp bu ñu sañoon mu bëreeg Boy Niang mais barki de moo Ndiaye ay kaar la mobiliser foofu jàmm gën ñu dem si ji Boy Niang. mais père père est ce que xam nga ni Boy Niang yàqule na foofu 300 millions. déedéet. Reug Reug yàqule na fa Bombardier léeg nga lekk nga lekk lu baaxul. après da ngay dem fajoo ko. mais relation ba la Bombardier am ak ba du ñu bëri man de xaw ma ko relation bi ñu am xaw ma ko mais man ci carrière booy Niang moo leen boole. man ci carrière non <laughs> yooyu yëpp sax du ma ci dugg. ci carrière Boy Niang ba fi mu toll nii. musul nekk sunu sunu sunu euh, sunu ci sunu programme. parce que relation bu ci nekk. waaw yaa ngi dégg dama lay wax rek gis nga làmb du ñëpp ngay bëreel Lac de Guiers rek ni neen du bëreeg moom pourquoi du bëreeg moom parce que Lac de Guiers numéro un. Lac de Guiers numéro waaw. tey su doon bëri ba Diène Kaïré ñëw du bëreeg si Diène Kaïré. mais Lac de Guiers numéro un moo tax Lac de Guiers deux ne du bëreeg Bombardier mais loolu laa la wax. kan moo tax léegi Boy Niang Pikine la dëkk Bombardier xam nga yaa ngi tudd Cheikh Niang. kon Cheikh Niang moo leen boole. non bu deet waxuma moo leen boole de dama ni. Ah. yaa ngi ne xëy na Cheikh Niang moo tax parce que Cheikh Niang ngi fële ci Bombardier. ba pare kii nekk rakam. dafa am loo xam ni ñun des fois sax duñu ci dugg Boy Niang mën na bëre carrière am ba mu jeex mais am na ñoo xam du bëre ak ñoom. Balla Gaye mi ngi bëre carrière am am na ñu mu bëreelul tout récemment lay doog a bëre ak ñoom léegi bés bu leen làmb waroon a bëre dañ leen di boole mais gëw ma ni loolu dana am. waaw am na solo waxtaan bi neex na bu sañoon continuer du jeex. waaw xanaa tàggoo rek waaw. di wax ni ñu ngi nuyuwaat ñëpp di wax ne Pikine yëpp ñu ngi leen di xaar si combat yi nga xam ne mooy ñëw te Pikine suñu àndee rek lépp lu ñu defandoo dañ koy gañe kon nag combat soq bi ñu ngi ci xaar tous les Pikinois combat. Ama Baldé bu fekkee jàpp nañ ko bu fekkee ne jàpp nañ ko beneen date aussi ñu ngi ciy xaar Pikinois yi boo ma seen la même chose waaye di nuyu sama mbokk manaate yi di nuyu sama soxna yi Nafi njaay ak euh, Soukayli di nuyu aussi sama doom yi jiital ci Mansour moom mi seen mag di nuyu ñëpp rek di wax ni Sénégal yàlla na fi jàmm wàcc jërëjëf mbokk yi gis ngeen tey li leen leen indiloon nekkoon fii ci pikin kafe gi nekkoon fekk suñu papa Père Bourkhane ku ko xam-xam ko ci lam yaakaar naa waxtaan bi neex na am na solo ñuy gërëm ñëpp di gërëm caméraman yi nga xamante ni ñoom laa àndaloon ku ci mel ni Khalil Arfan di nuyu sama jigéen Ami Kolle ma àndaloon moom ci waxtaan bi di gërëm Père ci yombal gi ñu ko yombal macha allah waxtaan bi neex na am na solo di leen joxaat dig daje beneen yoon ak beneen champion jaa ngeen jëf